la li gën a gàtt ci lu ñuy seede ci Sidi mooy nitu dëgg dem na koo xam ne fu mu fekk dëgg yëkkati ko xoolut ci lam koy coûté xoolut ci la ko cay fekk e, mën naa wax ne way néew doole yi e, paq ba màgg màgg màgg màgg ñàkk nañ ko bis ni ki tey waaye nag alhamdulilahi rabbil alamin yéen ñi mbokkaloon métier bi yéen a ngi fi yaakaar nañ ne ni mu doon respecté doomu aadama yi di aar ñi nga xam ne ñooy way doole yi incha allahu dangeen ko continuer. ci wàllu diine ci wàllu diine li nga xam ne Sidi Lamine Niass daal dama ciy def. Euh, ay réalisation wu Sidi Lamine Niass ci wàllu diine kenn mënu ko lim euh, tasaare xam-xam ci la doon xëy ci la doon gont bind ci la doon xëy ci la doon gont euh, bind na téere yu bëri ba ci téere bii ma yor téere la boo xam ne moom moo ko bind moo la gudd ko moo tax ci wàllu xam-xam xam naa gàtt jotaay bi dafa dafa dafa dafa xat te itam émotion yi rey na waaye daal dañ naan Sénégal ñàkk nañ ko jëmm ju màgg rawatina moment yu difficile yi ñu toll yàlla aljana di sax waaye